bu ñu demee ba jën suñu demee ba jën oto yi Maroc fi nekk oto yi Mauritanie fi nekk ak yeneen oto pour ñu mën a approvisionner Sénégal da nga may jël bu baax ak ni may jële ndax ñu ni fi ñu jëm ñeme nañ ko fi ñu jëm xam nañ ko waaw kon bu ñu ñëwee di ànd ak sëriñ ànd nawle waaw waaw je waaw je vous appelle vous êtes en de faire un discours. moi je dois être au courant de cela. waaw n'est-ce pas. waaw pourquoi je ne suis pas au courant. je viens je vous appelle. waaw je vous appelle. en huis clos. vous vous vous refusez et de de de faire. non non non non je je lui ai de venir il n'a qu'à venir. c'est parce que dafa am ñoo xam ne nii bu ñu xamul seen liggéey dañ leen di jàngal seen liggéey. fii lii privé la su ngeen fi nekkee di réunion kenn amul droit ñëw di leen interrompre dafa war a xaar bu ngeen fi defee lu jaaduwul mu convoqué leen lii dafa ruslu man maa leen ko wax dafa ruslu ci réew république saa yu ngeen bëggee ma ñëwaat fi li ma fi gis nag mooy da ngeen war a góorgóorlu gëm seen bopp changé lii yàlla dafa wax ne tant que soppiku leen du ma soppi kon nag man maa ngi leen di gërëm leen sant li may wax wax naa ko nañ fexe ba réew mi ñu jox ko liggéeykat ki wax waxkat yi ñëpp am jàmm sécurité am jàmm voilà parce que lii jaatuwul et c'est révoltant voilà maa ngi leen di gërëm leen sant jërë ngeen jëf.